salaamaaleykum mbokk internetu Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay amaan mbégte kontaan te teew fii ci kër imam fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bari moom moom nekkul ko ñuy présenté kanaa balaa ñuy xuus ci waxtaan bi dañ koy bàyyi rek mu nuyoog suñuy mbokk internet. alhamdulilah rabbil alamin di sawar lool di leen sargal ci seen liggéey yéen waa Dakar euh, People di kontaan lool ci dalal leen fii ci bërëb bi ma nekk ngir waxtaan ak yéen tontu ci seeni laaj di nuyu nag eh, internet yi nga xam ne yëpp ñu ngi suivre eh, waxtaan bi. am na solo nee naa leen am na réew moom fu muy toll il faut ngay seeti ay borom xam-xam nga waxtaan moom ci tolluwaay réew mi balaa ñuy bu ñuy duggee si lii bi nag mooy nekkoon procès kii di Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang gis nga lu xewoon lii ci procès bi ñëpp di ko ñaawlu woon. Eh, gëstukat laa gën a jàppee sama bopp ko boroom xam-xam. Mm-hmm. alaa kulli xaal procès bi. dama jàppaar dama jàpp ni ngeen baal ma euh, lu jaadu la ci ci ci république ak réew mu tegu ci yoon nu muy doxee mm-hmm. mais c'est pas pour rien que mu am institution judiciaire mm-hmm. yoon parce que nit ñi du du tout le temps la ñuy def lu jaadu yem ki seen cër et cetera keroog dama waxtaan ak benn taximan sama xarit nañ parce que en général taxi lay defee samay déplacement mm-hmm. euh, souvent donc si ñoom laay nattee tamit tuuti opinion publique bi booy waxtaan ak ñoom léegi nag euh, ma ne ko boo seetee réew mi fii coow li muy bari bari yëpp génnul ñaar mu ne ma hmm. ma ne ko laaj ma rek bul bul bul jaaxle mu ne waaw ma ne ko waaw da laaj parce que magum jëmm laa yaakaaruma ne dinaa wax wax boo xam ne eh, xaw ma fu ma ko teg ma ne ko li ci ëpp lii lay doon koo xam ne dafa bëgg a jéggi cëram jël cër bu dul cëram ak koo xam ne dafa war a dafa bëgg a jéggi fi mu war a yem xeex yi ngay gis ci mbedd mi ba li ngay gis ci état bi ba ci élection yi doo ci génnee ñaar yooyu ku bëgg jël lu dul cëram ak ku bëgg a jéggi fu mu war a mu ne ma ah xam naa li ngay wax. ma ne ko nag noonu la demee gis nga ne ko loolu moo tax yoon am yoon bu amul woon lu ñuy wax jungle euh, mën sa morom duma moo fi am. te loolu histoire xam na ko société yoo xam ne noonu lañ meloon ñu dem ba nit ñi sonn ci tàyyi ci xam ne fitna bi am na lu ko gën ci lañ waxtaanee léegi lu ñuy def ñu ne ah bu nit ñi jàppante nañ seet léegi euh, fu ñu leen di yóbbu ñu déglu leen àtte yoon moo tax après société yëpp mujj am yoon. Hmm. société boo dem ci àdduna bi euh, am na toujours euh, jàppante boo amee te jàppante day am saa ne. Hmm. parce que nit moo tëddee noonu nit moo mel noonu. Hmm. Euh, ñu yóbbu ko ci yoon. kon procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang pour man du lenn lu dul rek procès ñaari citoyens au-delà des acteurs politiques yoo xam ni jàppante nañ ñu war a dem yoon mais gis naa ne nañ dem yoon léegi Mame Mbaye dafa utiliser lu ko yoon may. mooy ne dañ maa tuumaal dañ ma wax loo xam ne ma ko nangam ak nangam ki ko wax na ñëw euh, wuy ma fii ci kanamu juge bi ki nga xam ne tamit moo wax loolu moom tam nee na man li ma xam naa fu ma ko teg fuñ ma woo ma wuyu kon procès bu jaar yoon la man na moo tax gisuma lu jar fii procès boobu ñu ci woo réew mi yëpp ñuy daw ci mbedd yi di kërti kërti euh, gisuma lu ko jar hmm. euh, na nekk procès bu silvisé bu normal ku nekk dem ak say dossier say avocat Euh, ñu wax fa la ñuy wax après ñu seet euh, atte bi nu muy demee. loolu la ñuy desandi ndaxte wax nga ko léegi say biir wax ñoom ñaar yëpp ñaari citoyen lañ kee moo porté keneen keneen ki pointé mais gis nañ procès bi ba pare anam bu ñaar ndaxte gis nañ Ousmane Sonko bu muy ñibbi bii si këram ay homme de tenue ñoo ñëw ba dajji euh, toj oto génnee ko ci oto dugal ko seen oto yóbbu ko ci këram mu nekkoon acte boo xamante ne ñu bëri ñaawlu nañ ko ci biir. waaw ñaaw na ci gisin bi nii. Hmm. Hmm, toj oto nangam nangam xëy na ñi nga xam ne ñoo def loolu ñoom ñoo war a gën a mën a expliquer li tax ñu def ko te man mën naa leen nangul ñu am sañ-sañu def loolu parce que seen métier la dama respecter métier ak compétence. Euh, tey ji yow boo xamul dara ci affaire imaam nga ñëw ci jàkka ji mën na def lu la jaaxal. mais boo teyee ak dal ba laajte mën nañ la indil ay euh, leeral. noonu tamit force de l'ordre et de sécurité la. Mm-hmm. donc lu jëm ci bu ñu naree gaañ nit wala faat bakkanam wala tiire ko balak yu mel noonu ñoom ñoo ko jàng ay ati at ñu former leen ñoom ci ëpp xam-xam fop day mhm. su fekkee am ngeen occasion ngeen dem laaj leen du ñàkk ñoom ñuy defal leen ay leeral wala ñu def ay communiqué eh, daal ne lii ak lii moo tax ñu def ko boobaa ñun ñi mën nañ analyser seen réponse mhm. mais am nañu sañ-sañ ñoom ci lu baree baree bari ci luñ jàpp ne ñoom lii lañ war a def seen métier lii la laaj mhm. eh, moo tax duma ma leen ŋàññ ci loolu en même temps aussi bu fekkee dañoo ne lii moo tax ñu def ko te la tax ñu def ko Eh, ñi nga xam ni tamit gëstu nañ mbir mi gis nañ ñi woyof na hmm. en ce moment tam ñu mën nañ leen critiquer hmm. ne leen bu doon lii rek la mënoon ngeen def leneen hmm. noo xam ni mooy gën a rafet donc noonu laa noonu laa gisee euh, mbir moom mais sant yàlla rek que Ousmane Sonko dem na fa ba delluwaat këram ci jàmm donte woon loolu am na ci waaye au moins moom ñoŋ na ba dem këram loolu tam sant yàlla parce que diggante boobu lu nekk mënoon na fa xew aussi. Mhm. ñu gis Ousmane Sonko influence bu muy am si xale yi ndaxte gis nañ xale yi sooy boobu naan la jox nañ président Ousmane nopp ba gis nañ léegi dañoo génne benn proverbe bu ñuy naan ku dee sa yaay jural Ousmane Sonko fu leen woo dañuy dem wuy ji ko. <laughs> loolu loolu moom euh, yàlla moo ko def. Euh, bayre wolof dana koy tuddee bayre mhm. nit dana am bayre siiw mhm. te kenn du mën a xam sax siiw boobu fan la jógee léegi euh, Ousmane Sonko siiw na lool fi mu nekk nii mais boo bëggee duut baanaam li tax mu siiw doo ko mën a xam. Hmm. moo tax ma ne lu wolof wax bayre maanaam euh, nit li mu xamul en général daf koy lëmës ci benn kàddu. Hmm. maanaam gis nga ay bay rek ay hasard ay lii de doy na waar loolu ñàkk a xam lan la euh, te te bëgg koo tuddee dara. Hmm. moo indi loolu kon lii tam bayre la parce que léegi soo ko ci wàllu mën a politique ak yooyu yaakaar ma ni moo fi mës a dàq politique ci waa Sénégal ba tax mu siiw. su dee ci affaire leneen ak leneen lu ci nekk rek mën gis koo xam ni tane na ko foofu. moom it tane na ay nit feneen ak feneen. Hmm. Euh, même jub bi ñuy wax ni jox nga ma occasion jub bi ñuy wax ni hmm. damay dégg ñu bëri dañuy wax loolu ku liggéey impôt domaine 15 ans. Hmm. mosoo fa lekk dërëm ma ne attention. Euh, moom moo wax loolu. loolu it mën na doon dëgg. mais ñun suñuy waajur man maa ngi fàttaliku suñuy papa yi ñun ñu ci bëri mais liggéey nañ ba génn àdduna laalu ñu dërëmu kenn. impôt domaine cadastre am na paa yoo xam ne liggéey nañ fa ba ba retraité amuñu kër. Mamadou Dia ko jublu woon. keneen ak keneen. kon loolu nañ ko wax ah mais sama genre yi kenn du ñu dugal ci yooyu ah. mais nag nangul naa ko mu wax ne man euh, dugg naa ci système boo xam ne lekk fa xaalis dafa yomb te defuma ko dama ko koy nangul aussi. Hmm. jusqu'à preuve du contraire amee preuve tamit nag bu ngeen ma laajee ma ne ah kon affaire bi doy na waar loolu la moo tax ma dellu siwaat ci question bi siiw boobu bayre la euh, man mii sama doom euh, bu jigéen bu am 14 ans foog na wala 15 ans du sax de élection présidentielle bële. waaw xam lu ñu doon waxtaan nii rek ma koy wax affaire yow euh, kan ngay fa pareegu sax mu ne ma la Sonko Sonko. ma ne ko baax na yow mënuma débat ak yow. Hmm. donc loolu <laughs> bayra bayra la yàlla moo koy def xam man mii bàyyam sax euh, au lieu sax mu ne ma ah. léegi yow papa kan nga jàpp ne moo gën mun mën a nekk président Sénégal laaju ma sax laaloo man nangul ko ko <laughs> âge bi ak tamit <laughs> siiwu Sonko hmm. donc loolu loolu bayre la mais li am solo c'est important question bi. li am solo mooy que bayre boobu loo ciy def. est-ce que Ousmane tamit de jarta muy bàyyi xel xale yi ndaxte gis nañ ay xale yi dong ñoo koy topp te saa yu wootee ñëppay jóg am na yoo xamante ne dañ ñàkk seen i bakkan ñee ñu tëj leen ñee ñi am si ay gaañu gaañu yoo xamante ne sooy boobu mën a dootu njëriñ seen bokk da est-ce que jotul moom tamit ay génnam ba ay sorti mu koy xoolaat. waaw Euh, non ay xale rek toppuñ ko gaa am na ay mag xam nga am na les damay suivre léeg-léeg les anciens xaw ma du Pastef ay mag ay pas retraite ak tamit gis nga temps yi doomu daara yi ak ñeneen ak ak ci biir parti bi ci staff bi am na ñoo xam ne mënoo wax ne ay xale yu ndaw lañ euh, mais alaa kulli xaal euh, bayre effectivement mooy li ma wax da seet noo koy wéccee na wécceeku ci terrain bi ci lu baax maanaam ci politique bu rafet ci communication bu rafet ak ci doxalin boo xam ne daal Euh, la nga bëgg na nga ko doxalee euh, du tey xel hmm. euh, tey it mën nga ñàkk a yëkkati fitna ca na ngay doxale rawatina fi nga gën a doonee jàmbaar xam nga mooy fan hmm. mooy nga mën a yëkkati fitna facilement ba pare bañ koo def loolu mooy vraie éthique politique hmm. mooy tey ji Ousmane Sonko kon ko waxee xale ñu ci bëri su leen ne lii ñu def kon fi mu jàmbaaram dëgg mooy jihaadu nafs xeex ak bànneexu bakkanam ak bayreem daan na c'est pas parce que am naa bayre c'est pas parce que siiw naa c'est pas parce que su ma wootee xale yi génn te damay def lu ma neex damay def lu jaadu. Hmm. lu rafet. Hmm. loo xam dana ma may way bu rafet ci réew mi. Hmm. kon man conseil boobu lay jox euh, Ousmane Sonko en particulier parce que ci moom nga euh, laaj. su ko defee effectivement c'est à lui de nag man war nekkuma fi comme ni ma la wax dama respecté tellement métier yooyu. am man tey ji benn politique bu ñëwee di ma wax affaire imam yooyu dama ko naan sa xoolal. demal demal demal def sa liggéey quoi bàyyi ma ma def sama liggéey. Mm-hmm. mënumaa gën a xam lu nekk ci affaire imam mm-hmm. ak jàkk ji du dëgg. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs problème boobu la ñuy am yenn saa sax suñu jàkk yi. ngay gis président bureau bi wala ku yore commission nangam ñëw foofu di dugg ci yoo xam ne charia moo ko àtte. mais kon Ousmane Sonko je vais pas lui faire la leçon. Euh, en politique nii en communication politique. mais ci principe bi rek effectivement bayra boobu. ah li ñu bëgg rek mooy mu jëfandikoo ko. ci anam boo xam ni mm. anam bu rafet maanaam li ñu tuddee ñoom seen bopp éthique politique maanaam mm. doo doo doo a def lu la neex mm. du loo sañ ak loo mën rek def waaye lan moo rafet a def lan moo jaadoo def. am na solo mu defee ko ni nga xamante ne daal kenn du ci loru su ma la déggee imam mais dañuy dem ci beneen projet mooy diggante moom ak Adji Sarr projet boobu moom dégg nekk na ci projet boo xamante si moom ma laa si tànk bàyyi ko lañ jëm nag te déggatuñ kenn waxati ci depuis projet kii di Mame Mbaye Niang bi ko. Euh, non bàyyi nekk atte ni muy demee ak procès mm-hmm. mënta nekk euh, suñ ko bàyyee nii rek mm-hmm. euh, lu doy war lay doon mm-hmm. parce que dafa toll foo xam ni ñu ngi koy atte euh, chambre criminelle wax nañ irrecevable léegi nag presse bi li ñuy wax mooy que nii avocat yóbbuwaat nañ ko xaw ma ci ban niveau donc kenn bàyyiwu ko foofu dafa laaj temps te tam souvent nit ñu dañ koy fàtte boo nekkee acteur politique nga siiw wala même artiste wala imam nga siiw toujours dañuy bëgg say yëf yëpp gaaw mais xanaa xamoo ni rang la rang la mm. eh, tribunal rang la mm. sa dossier bu ñëwee dafay fekk yeneen c'est pas parce que nag yow da ngaa siiw wala dara que sa dossier bu ñëwee ñu teggi xool teg nii teg ko ci kaw. Mm. Euh, su ko defee euh, man boutique bi nii fii su may dem fii nii su ma ñëwee euh, ñi ma fay fekk yenn saa dañ may xàmmee ñi jox ma cër ma ñëwee ñu ne jaayit imaam jaayit imaam ki ma ko may ma jël ko parce que daf ma ko may ci xol bu sedd. ki nga xam ne mayu ma ko nag dama naan boutique yi comme kii moo ma jiitu jaay ko léegi sa boutique yi daf may jox cër bëgg ma jaay te fekk kenn jiitu man sax maa ko naan non kii moo a jiitu kooku ne ah imam non na la jaay ma ne d'accord kon tam dossiers yi dañ fay fekkante c'est pas parce que nag yow yaay diw wala yaay diw justiciable rek nga mën a doon gis nga juge bi moom justiciable la yow dana la war a atte tegal la benn dossier sa dossier ñëw moom am na déjà lu mu programmé greffier yi bind ko et tout mhm. dañ koy planifier mhm. kon procès bi mën na bañ am sax avant mhm. élection yi mais ça veut pas dire que ni dañ koy bàyyi kenn du ko mës a bàyyi bii dossier parce que soo ko bàyyee il faut nga wax ni lii lañ ci àtte léegi Ousmane Sonko li mu wax ak ay avocat am dem nañ ba gis ne effectivement lii jaratul yóbbu procès pour tel ou tel wala dañ ko yóbbu procès foog nga wax ci benn moom kon kenn bàyyi ko mais nag comme ni ma ko waxee pour question temps dossier bi mën na sax dem après. élection gisoo ay nit yu bëri def kaso ay cinq ans dix ans. ñu leen di doog àtte extera donc te dossier bi mën na doon loolu parce que dossier boo xam ne la accusation bi crime la. réew mi hmm. kon euh, noonu la demee mais kenn mënul ñàkk a àtte dossier bi ci nii wala ca naa. Hmm. waaw foog euh, magistrat yi wax ci lañ cay wax. Hmm. est-ce que dossier bi tamit doon après élection ba élection bii di waaj a dégg gu ñu àtte est-ce loolu tamit arrangement kii di président Ousmane Sonko ndaxte moom daa bëgg a déposer lii di candidature am ci waaw moom koy dossier bi su fekkee ni dafa jàll euh, avant après élection yi ga da koy arrangé trop sur le plan politique waaw trop kay parce que su fekkee def nañ procès bi avant lu ne mën na cee feeñ. Mm-hmm. éléments yu bees yoo xam ni feeñagul woon ba tey ku nekk dencoon ko mën na feeñ ci procès mën na ñëw ci procès bi euh, Adji Sarr ñëw ak ay avocat am génne ay éléments sonores wala ay vidéo wala xaw ma yeneen ak yeneen euh, Ousmane Sonko tam mën na ñëw ci euh, procès ba génne yeneen éléments yuy gën a wane ni kii li muy wax tegul ci dëgg et cetera et cetera donc loolu yëpp noonu li gën a wóor pour ku bëgg a nekk candidat moom mooy procès boobu am après élection yi c'est sûr que loolu moo gën a arrangé Ousmane Sonko te loolu tam mën na nekk par rapport ak ni ñuy planifier dossier yi